الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا مولانا من الشاهدين ووفقنا بالقران الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من آيات وذكر بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوة عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا خدمة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من نساء أو نسوان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زاد أو نقصان aw taawilin ala xayri ma anzalta aw taxjirin ila tilaawatihi aw kasrin aw zayqin lisaani aw xoofin bi xayri waqin aw itxaamin bi xayri mudaxam aw isaarin bi xayri bayaan faktuhu minna ala tamaam wal kamaal wal mu'azabi min kulli alhaan min kulli alhaan warzuqna fadla man qara wa muaddiyan xaqa wa mal adaa wal qalbi wal lisaan wa abdana bihi alxayra wa saadata wal bishaarata wal amaan wa ataxtum lana bi sharri wa dalaati wa tuxyaan ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من أثاب القبر ومن سؤال ممكن ونكيل أكديدان وبيض وجوهنا يوم البحر وعتق رقاب يوم البعض وعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وصل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم جل القرآن العظيم ربها قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقيدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم جل أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودلنا في في الحيرة ومنقذنا في في الفتنة وعصرنا من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية قلوبنا وأصلنا واجرنا إلى رحمتك إلى رحمتك مسرنا ومآلنا واصبب سجال عفيك على ذنوبنا ومن علينا بسر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وعمل من الجوح والقف بلادنا والسائر بلاد المسلمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما طلعناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح وإلى روح شيخنا الخديم رضي الله عنه ورحمه وبركاته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 bismillaahi rahmaani rahiim bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla suñu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba feddali suñu taalibe ci moom di ñaan mu nagul na ko ci barke jëmm ji ko fi nekkal Cheikh Ahmadul Muntaqa ñoo ngi ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoo liggéey bi ci sëriñ bi santoon nañu taxawu ko muy niñ ko daan limee rek waa rabitatul madaris al islamiyya al quraaniyya fii Touba waa Muxaddamatul Xidma ak mboolem mi aju ci jumaa ji ak mboolem yi nga xam ne yëngu ñu ngi ciy yëngu te ànd koog noonu noo nga sëriñ bi sunu nuyoo ak sunu kent ak sunuy ñaan di ko xamal ni lam digle woon jàpp nañ ni lan ca man lépp ànd na nu mbooloo mi ak taalibe yi ak bokk jullit yépp defe ko na ko bëggee woon bu dee ci wàllu alquran ji mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak jàkka yi ak daara yi yendoo nañoo jàng ba waxtu wi njàngin wu sell wu teey woo xam ne bi dara ci àdduna nekku ci muy ni mu ko bëggee woon moom gannaaw bu nu defee ndigal la mu njëkk a defal muy tuub dellu ci yàlla jéggalu ko feddali sunu taalibe bi ci sëñ Tuubaa defe na njàng mi ci alxuraan ji dam ko bëgge xasida it noonu la demee sëriñ Xamsatu mi nga xam ne moo ko daan jiite moo daan jiite njàngum xasaayit mi wax na ni tasaare na mbooleem daayira xasaayit yi fi ñu koy jànge ñu bokkut toog ca barab booba jàng ko fa ñu yóbbu leen fa ay bernde ngir nii jamono ji demee kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba barkeb alxuraan ak xasaayit barkeb yonent bi sallallahu alayhi li nga yéene ba tax nga sant nu lii ngir bëggal nu lu baax bëggal nu xettaliku àddina ak àllaaxira bëggal nu ngërëmul sëriñ Touba yàlla na ci yàlla defal lu kawee sa njort li nga yéene njabootu sëriñ Touba gi ko taalibe yi yéene ko bokk yépp yéene ko bokk kilifa yi diine yi yéene ko bokk jullit yépp réew mi yéene ko waa sépp yàlla na ci yàlla defal sa lu sant bu baax di toogaas nag di dégluwaat ndigal fas yéene ñaan suñu borom yàggal la fi nga yàgganoo digal ñu yàgg ji fa sa ndigal te bañ a jaar ci lenn looy tere yàlla na ko teewee at yi at yu baree baree bari ci barkeb Sëriñ Tuubaa te suñu borom àggale seen liggéey na nga ko bëggee ci barkeb Xaadimul Mustafaa wa hisatil maxduum sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jëf آمين أنت الرحيم الصمد الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن المنان اكفر ولا ود بجل وباء وسقي الله لا يكفر داء الله حي صمد وباخي سبحان رسول كان في من في كان في المن والسنين مستمسكين بالقياس احمد خير الانام منتهى وابتلى من قالها في سمن الوباء امنه الله من آمين آمين